noonu yéesu daldi leen wax ciy léeb mu ne leen amoon na fi nit ku jëmbat toolu reseñ mu ñag tool bi gaspax ngir nal ci reseñ yi tabax wattukaay ba noppi batale ko ay beykat daldi tukki bi tool bi ñoree nag mu yónni surga ci ñoom ngir jot wàllam ci meññeef gi waaye ñu jàpp ko dóor ko ay yar dàq ko mu dellu ak loxoy neen mu yónniwaat beneen surga waaye ñu dóor ko ci bopp toroxal ko mu yónneeti beneen surga ñu rey ko mu yónne ñeneen ñu bari ñii ñu dóor leen ñii ñu rey noonu mu dese ko kenn rekk di doomam ji mu bëgg mujj mu yónni ko naan xej na ñu wekk sama doom waaye baykat yi daldi ne ci seen biir kii moo war a doon tool bi nan ko rey moom ndono li ñu jàpp ko nag rey sànni si biti noonu Yeesu laaj leen boroom tool bi nag lu muy def xanaa ñëw rey baykat ya dénk tool ba ñeneen ndax musu leen jàng wax ji ci mbind mi doj yu tabaxkat yi sànni mujj na di doju koñ ci borom bi la loolu jóge te yéemu nanu ci noonu kilifa yi di wut pexeem jàpp ko ndaxte xam nañu ne ñoom lay wax waaye ragal nañu mbooloo mi ba ñu bàyyi ko fa dem bi loolu amee ñu yónni ci yeesu ay farisiyen ak ñu far ak buur bi erod ngir fiir ko ci waxam ñu ñëw ci moom nag ne ko kilifa gi xam nañu ne ku wóor nga te ragaloo kenn ndaxte seetuloo jëmmi nit waaye dangay xamle yoonu yàlla ci bu wóor wax nu ndax jaadu na nu fay buur bi sesaar galak am déet nu fay ko walla nu bañ koo fay waaye yéesu xam na seen naafeq mu ne leen lu tax ngeen bëgg ma fiir indi leen ma posetu denaariyoo ma seet ñu jox ko poset bi noonu yéesu laaj leen kan lañu ci def nataalam ak turam ñu tontu ko sesaar noonu yeesu ne leen jox leen nag sesaar li sesaar moom te jox yàlla li yàlla moom ñu daldi waaru ci mbiram ginnaaw loolu ay sadusiyen ñëw ci moom ngir laaj ko lenn sadusiyen yi nag gëmuñu ne ndekkite am na ñu ne ko kilifa gi musaa bind nañu ne ku magam faatu te bàyyiwul doom ak jabaram kooku war naa donn jigéen ji ba yëkkati giiru magam amoon na fi nag juróom ñaari góor ñu bokk ndey ak baay taaw ba takk jabar faatu te bàyyiwul doom ñaareel bi takk jigéen ja faatu moom itam te bàyyiwul doom ñetteel ba it noonu mbir mi dem na nag ba juróom ñaar ñooñu ñépp dem te kenn bàyyiwu fi doom mujj jigéen ja faatu moom itam ci ndekkite li nag kan ñoom moo ko war a donn fekk ku nekk ci juróom ñaar ñi mas na koo takk Yeesu leen ne mbaadu dangeen a nekk ci réer ci li ngeen xamul mbind mi mbaa kàttanu yàlla ndaxte keroog ndekkite li kenn du am jabar kenn du am jëkkër waaye dinañu mel ni malaaka yi ci kaw te sax li jëm ci mbirum ndekkite li xanaa jànguleen lii yàlla wax ci tawreetu muusaa ci saarum ngarab si maa yàllaay ibraayima isaaxa ak yanqooba li ci gën mooy nekkul yàllaay ñi dee waaye yàllaay ñiy dund la kon soobu ngeen ci réer bi ñuy werante benn xutbakat ñëw dégg seen waxtaan gis na yeesu tontu na leen tontu lu leer mu laaj ko nag ci ndigal yi ban moo ci gën a màgg noonu yeesu tontu ko ne bii bànni israyil déglul yàlla sunu boroom moom rekk mooy buur kon nanga bëgg yàlla sa boroom ak sa xol bépp ak sa bakkan bépp sa xel mépp ak sa kàttan gépp te ñaareel bi lii la nanga bëgg sa moroom ni nga bëgge sa bopp ndigal yi ñoo sut yépp xutbakat bi ne ko waaw kilifa gi li nga wax dëgg la yàlla kenn la te amul jeneen yàlla ju moom te nga bëgg ko ak sa xol bépp ak sa xel mépp ak sa kàttan gépp moo dàq bépp sarax bu ñu yóbbu ngir màggal yàlla ak bu ñuy lakk ca bu rendukaay ba bi yeesu gisee nag ne tontu na ak xel mu ne ko soriwuloo nguuru yàlla bi mu waxee loolu kenn ñimetu ko laaj dara bi nga xamee ne yeesu ma nga doon jàngale ca kër yàlla ga mu laaj nit ñi lu tax xutbakat yi di wax ne almasi bi mooy sëtu daawuda daawuda moom wax na ci kàttanu xel mu sell mi naan borom bi nee na sama boroom toogal ci sama ndeyjoor ba kera may daaneel say noon ci sa kanam gannaaw daawuda nag wooye na ko boroom bi naka mu nekk sëtam noonu mbooloo mu mag mi di ko déglu ak bànneex bi yeesu di jàngale nag mu ni leen moytu leen xutbakat yi dañoo bëgg di doxantu sol ay mbubb yu rëy te ñépp di leen nuyoo ñaari loxo ci pénc mi ci jàngu yi féete kanam lañuy wut te toogu yu yiw lañuy taamu ci reeri xew yi ñu ngi lekk alalu jigéen ñi seen jëkkër faatu di ñaan yàlla ay ñaani ngistal yu gudd seen mbugal dina gën a tar noonu yéesu toog ca kër yàlla ga janoog ndab yi ñuy def sarax ngir yàlla muy xool nit ñi cay dugal seen xaalis am nag ay boroom alal yu ci di def xaalis bu bari gannaaw ga daal benn jigéen ju jëkkëram faatu te mu ñàkk ñëw def ci ñaari poseti xànjar yu matul sax dërëm bi ko yeesu gisee mu woo taalibe yi ne leen ci dëgg maa ngi leen koy wax li jigéen ju ñàkk jee dugal ci defukaay ya moo ëpp maanaa alalu ñeneen ñi ñépp ñoom ñépp dañoo sàkku ci seen barile waaye moom dafa sàkku ci néewleem ba far koo joxe lépp toog